kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi Mbàkke yaa nu yem ma jéem a kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi Mbàkke yaa nu yem sëriñ bu yaarame sëñ bi day nit ku yàlla baaxal muy nit ku xayante ni ku fonk doomu aadama muy Cheikh Abdou Karim Cheikh Karim nag euh, sama maam bi jur sama baay muy mët sàmm buuse moom la sëñ Fall daa ni ko mët sàmm mu ni ko mbàkke mu ni ko mët sàmm yëgleel ma euh, kon loolu day lu rëy kon bu ma feddilee loolu di ñëw ci kër sëñ Abdou Karim sëñ fonk ma lool bëgg ma lool nga fekk ma fi introsé ma ci sëñ Abdou Karim dinaa la wax li ma xam ci sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim ku takkook moom takk dara ku takkook moom takk dara baati nag bëti nag bokkul gumba bu la nee na sànnit da dëgg ci xeer soxna woo fay ko jur soxna woo fay gayal gayal mu tufay sa ngoone sëri sa ngoone gayal maamam soxna gayal bu màggal musaana jot bu muy indi teraanga yi ci saxaar gi la koy def sëñ Fall da daa génn ci njigis gi fi njigis gi nekk buntu këram fi laa daa toog ni gayel ak ségulo maam yi Cheikh Abdou Karim ku ñaan ñàkk nag boo jëndee am ku ñaan ñàkk boo jëndee am Cheikh Abdou Karim teraanga koy ténc maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla lafal cat may nuyuwaale tamit magam ju baax ji di soxna may galas ndax mooy magi sëñ Abdou Karim yaay yi soxna Ndey Buso maa ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam soxna may galas ndax mooy magi sëñ Abdou Karim bala maa nuyu sëñ Abdou Karim moom mu soxna may galas lay njëkk nuyu ndax mooy mooy mooy mooy kilifaam muy soxna may galas su sunuy lépp muy nit ku yàlla baaxal di doomi Cheikh Mamadou Fadel di doomi soxna wa fay di sëtu gayal gayal nag liggéeyal na sëñ Fall liggéey boo xamante ni du niil balaa yoom yi moo tax li naan sët day doon Cheikh Abdou Karim doon na soxna gayal ci bernde waaye nag tubaarkàlla macha allah biteel la mu def moom la sañ ba xeeñ kenn nur bokk jàmbur kenn ku ne say bokk nga ñur nga fekk ma ci jigéen ju baax muy soxna faat bintu puy soxna faat bintu nag day nit ku yàlla baaxal di jigéen ju xeeñte ni boo jaxasoog moom di ko téye ndax nag teeru gan ak teral gan moom rek la man boo ko fekkee fii ci appartement am nee naa ko yow dangaa ngaa créer restaurant amul fay fii ci kër Cheikh Abdou Karim muy nit ku yàlla baaxal nga fekk ma fi ñoom ñëpp rek ah, ndax soxna si moom danaan na ñëpp lekk na ñëpp naan te loolu dafa rëy te joxaw ñam dafa am solo te sëñ bi moom la bëgg borom kër gi di Cheikh Abdou Karim joxaw ñam la bëgg kër gi ko fi nekk doo xiif doo mar ndax borom kër gi li mu ko sampee mooy teral leen gan ñi ak teeru leen gan ñi waaye nag fekk na ko ci soxnaam su baax sii di teeru gan ñi di teral gan ñi ndax boo gisee tey couloiram bii la fi nekk ci ay bernde kenn xamul nu mu toll mi ngi doon joxe léegi ndékki yi servi ndékki yi muy nit ku baax di nit ku xayante ni nag moom dafa jël lépp jënd ko taali bi ndax ay diplôme moom la yor waaye dañuy man liggéeyal Serigne Touba ak liggéeyal Cheikh Mamadou Fadil damay dem ndax ndakaaru la ne ndakaaru waaye daa jël lépp bàyyi ko ñëw Touba fii ci Ndindi di liggéeyal Cheikh Abdou Karim di liggéeyal Cheikh Mamadou Fadel kon ñu ngi ko ci sant ñu ngi ko ci gërëm te bu ko neexoon toog Ndakaaru waaye dañuy bàyyi naa lépp ñëw fii di liggéeyal Cheikh Mamadou Fadel kon soxna Fatou bint ñu ngi lay defal mention spéciale di lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan kër Cheikh Abdou Karim daal ku fi ñëw dinañ la teeru dinañ la teral ndax Cheikh Abdou Karim teeru gan ak teral gan loolu rek la xam ndax nag biteel la mu def moom la saañ bee xeeñ maamam soxna gayal maamam sëñ Fall da daa génn ci njigis gi ni gaayil ak ségu la booba ci saxaar gi la daa teg bernde yi da ko daa toggeeñ Dakaaru ñaay cokkeer di ko indi sëriñ Fall Touba maam yi sëñ Abdou Karim mi jur soxna wa fay kon loolu da ko donn ci ay maam moom da ko gis bëgg ko ndax ni mu lay def ni mu lay accueillir ab sëriñ bu amee njariñ taalibe yi topp ko te Cheikh Abdou Karim dafa am njariñ njariñ la ko yàlla jox bu la gisee dalay may yëg may la safoo may la faale te sëñ bi taalibe bi amul lu du sëñ bi sëñ bi amul lu du taalibe bi taalibe bi nag bu ko sëñ bi fekkee bu ko sëñ bi fonkee def na la war waaye taalibe bi te bu fonkee sëñ bi def na la war te sëñ Abdou Karim dafa fonk ay taalibeem dafa fonk doomu aadama doomu aadama la Seex Abdou Karim fonk bu la xasee xam jeex na te boo taxaw moom tax dara man maa la wax lay man xaadim man xam naa ci lu bëree bëri xam naa ci lu bëree bëree bëree bëri ndax fonk bu ma fonk bu ma doon wax tey jii ci ba mu dégg ma danaan woo leen xaadim sàmb wóolu leen ma xaadim sàmb ma ñëw toog ak moom waxtaan ak man lu yàgg ñaanal ma yëkkat teraanga yu bëri jox ma te nag loolu sama maam la ko bàyyam daa defal sama maam bi jur sama bàyyi ma doon géwlu sëñ Fall kon Cheikh Abdou Karim bu ma ñëwee ci këram mu woolu ma dégg sama baat woolu ma yëkkati eh, teraanga jox ma def na la war te ku def la la war mu ci la war maa ngi lancé appel na ko ñëpp ñaanal yàlla guddalu fanam Cheikh Abdou Karim yàlla na yàlla guddalu fanam

titi jumul de coow laa ngi fii xalëf xalëf ji ak jalaw jalaw ji fii rek la xewe de kii kër Cheikh Abdou Karim kon daal kontaan naa sama xol sedd na guy maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam Cheikh Abdou Karim yàlla na yàlla guddal taalibe yi nag kenn mënu leen fay ndax ku dugg ci kër gi gis ne taalibe yi def takku liggéeyal Cheikh Abdou Karim loolu kon wax dëgg yàlla man dama koy rafetlu di ñaanal soxnaam di soxna ami ndax moo jiitu ci kër gi soxna ami la joor muy yaay soxna may soxna ami ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam ndax nit ku yàlla baaxal la nit ku liggéeyal Cheikh Abdou Karim la bëgg ko lool fan ko waaye nag soxna faat Bintou Pouye tamit ñëw topp ci moom ni ko dooma ko dàq kon soxna Fatou bintu ñu ngi lay sant yaag soxna ami ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam di ñaanal tamit doomam di soxna may laat di kenn ci man soxna may sama xarit la sama lépp la maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla fanam ndax moom dafa liggéeyal baayam waaw dafa liggéeyal Cheikh Abdou Karim soxna may laat ñu ngi koy sant di ko gërëm man daal bég naa sama xol sedd na guy ndax bi ngeen ma introsé fii fii laa bëgg ñu introsé fa ndax fii nag kër Cheikh Abdou Karim ku ma fi rek sama xol day sedd ndax Cheikh Abdou Karim day kenn ci man man daal sama xol sedd na guy maa ngi leen sant di la gërëm di leen ñaanal yàlla nañ ko teew ay déwén di déwén yàlla nañ ko teew ay déwén déwén ñun daal bég nañ suñu xol sedd na guy ndax suñu xol ak suñu yéene Serigne Touba lañ ko jox Serigne Touba képp sëriñ Touba dong ndax tey ku ñëw Touba xew li xew Touba nga xam ne sëriñ Touba ñi mawul war a fa am fay ma seetaan ma ñeetaan waaw kon nag bëgg naa sama xol sedd na guy